tey lii ñuy wax tey muy ay euh, affaire OFNAC ak ay Cour des comptes hmm. comptes ak ay IGF ak IGE ak yooyu loolu mooy gars yi bu ñuy sàcc hmm. maanaam tey gis nga butéel bi boo ko doon duy ndox hmm. xam nga du tuuru mais bu demee ba fees bu demee ba butéel bi fees ci lay tuuru lii siit noonu di tuur ba nit ñi di ko gis. mooy li nga xam ne mooy rapportu Covid bi parce que loolu daa fis loolu lañ génnee ba mu yéem nit ñi. mais sàcc gi ci ñoom nii immeuble yi nga gis ñuy génn comme des champignons. yu dul yu dul jeex ci alalu réew mi. koo dégg tey nga mën a gis saay-saay bu mel ni Doro Gaye ñu taxaw nangam mu naan Macky Sall la ma ko doon liggéey ay ay ay lu mu koy lu mu ko waxeeti ci affaire lan. sec waaw mission secrète. te y tellement de Doro Gaye yoo xam ne ni. dañ leen a talagut parce que man yàllaa dogal lu may teg dama ciy bëgg teg baaraam Macky sàll rek laa la wax. d'accord ñun xamal nañ ko fukki kër ak juróom-ñaar yoo xam ne du kërantu. te comme complexe la ni mu ko amee fii bi ñu xoolee la xel mën a dem ne am na ko Amérique am na France ñaarang fa yoo xam ne du kërantu ak bi mu yor Maroc nii ak yeneen yu ñuy wax te loolu ñu ngi ci buñ ko peegee ba noppi loolu nag moo indi tappale yi nga xam ne damay bañ a dugg foofu sax parce que day xawal a laalaal te jàpp naa ne jombut mi ngi ci euh, débat bi moo tax naa yemal ni foofu tuuti bañ dugg ci. ma ma ma wax ci. alors mu ngi noonu euh, jërëjëf Saa Wolof ci ci ci ci yu am solo yooyu noonu mais en attendant euh, daf may permettre li mu bëgg a def nii ñu def benn transition pour wax ci euh, temps yi coow li nga xam te ne ni jur na jëm ci wàllu affaire général Kandé manipulation ñuy wax ne de l'opinion publique alors solo yow en tant que taskatu xibaar yan yan moyen nga jàpp ne wala ay méthodes. yooyu une certaine je je dirais même presse ou journaliste ou patron de presse mais je sais pas euh, mën a emprunter pour au moins euh, mën a dem bay mel ni ku yegg ci ci manipulation ou opinion publique bi. waaw mais li nga xamante ne dañ ko dund semaine bi mu jëm ci coow li soxal général Kandé je pense que c'est regrettable. Hmm. heureusement après am na ñoo xamante ne commencé nañ di dellu ginnaaw fa ñu taxawoon. Euh, hmm. parce que dañu gis loo xamante ne bu ma saan am daawul jur coow. mu am ñoo xamante ne commencé nañ di ci dugg ba ci yegg foo xam ne waru faa yegg. Mhm. xam nga mën nga mën nga manipuler nga dugg ci lu jëm ci wàllum euh, société nga dugg mais manipuler ba dugal ko ci wàllum armée la c'est très dangereux ñu gis ci benn quotidien bu xëy mu titré le général se rebelle. Mhm. te or ñi xam général Kandé ñëpp xam nañ ne général Kandé ba mbir bu doon am boobu mu ngi woon fële ci benn euh, camp d'entraînement. ak euh, force yi nga xamante ne mooy ay française ak ñeneen ak ñu nekk euh, formation. fële ca Dooji. Mm-hmm. mbir mi am na waxul communiqué wul yow nga xëy ne général dafa rébellé wu ba dafay attaqué mbir mi fële ca cour suprême. Mm-hmm. mi benn loo xamante ne kenn mësu ko fee gis. général boo xam ne dañ koo jël yóbbu ko attaché militaire yow nga bindal ko ne te xam nga ne général du xëy mu def point de presse. du xëy mu def déclaration du xëy mu def communiqué. Mm-hmm. loolu ça pose déjà un problème ñu ne un général se rebelle ci dëkk bu mel ni Sénégal luñ mës a dégg. Mm-hmm. ñu avancé waa tuuti ñu gis benn information ni mu doon wër ci internet bi ñañ ko askanale ni ñoo moom information bi mi Afrique confidentielle. Mm-hmm. ñu daal di def ab bind kaka moom di Ismaïla Aydara daal di bind ne lii kat ñun moomuñu ko suñu site génnee ko sa ëllëg sa ñu xëy ay journaux yu xëy jël information boobu tas ko fanañ fàcce ko. ne Ousmane Sonko moo bëggoon def nii ak nii eh, système d'écoute baak bëggoon fee jëlee canadiens yi américains yeeg nangam ak nangam eh, ñi d'accord ci mu ne waa bëgg defanteeg général Kandé tax mu jëlee ko fi. Hmm. te ñi am xam-xam tuuti ci wàllum l'armée xam nañ ne premier ministre amul benn prérogative pour pour wax benn général nangam ak nangam ak nangam. Hmm. donc mu doon beneen mbir boo xam ne tamit boo xoolee ñu ko def. ñi ay journaux ñu jàpp ne ñu ko bind dañoo jaar ci école yi am formation am lépp am na leen laaxatu ci ginnaaw. Hmm. te c'est ce qui n'est pas normal. Mhm. parce que pour man bu ñu nekkee ci dëkk dafa am loo xam ne ñu ñëpp ñoo ko moom mooy l'armée mhm. kenn warut a mën a fexe fexe fexe fexe ba ñu koy euh, jéem a doyadil wala ñu leen di song wala ñu leen di sosal loolu mhm. ñëpp ko war a ñaawlu moo tax ma jàpp ne tey jii le fait que ñu yóbbu leen ci yoon ñu déglu leen bi ñu leen dégloo euh, mujjantal ga ñu bàyyi leen ñu ñibbi ñu bëri jàpp nañ ne c'est un signal boo xam ne dañ leen ko doon jox pour wan leen ne fi ngeen laal waroo leen koo laal may rafetlu bàyyi leen bi ñu leen ñu ñibbi waaw dama koy rafet ci rafetlu boobu noonu man li ma bëgg mooy euh, xam yow surtout taskatu xibaar nga communicant nga journaliste nga euh, citoyen bi naka lay mën a discerner li nga xam mooy désinformation ak information véridique. waaw xam nga loolu moo tax ñu am responsabilité xam nga citoyen bi dañ naan boo xëyee dafay mel ni ki nga xamante ne dafay dem marché le marché de l'information noonu la demee kii dee dem kii dem marché di la mu fa fekk lay jënd yow boo xëyee taxaw ci une bi dafa am lay jàngal mooy la théorie de l' agenda journalistes yi ñooy taxaw ñoom ñu tënk ñun fii lañ bëgg ngeen xool fa tey mhm. tey dañoo bëgg yéen ñëpp ngeen xool jëmale ko ci lu jëm ci wàllum général Kandé mhm. léegi boo leen ne dañoo bëgg ku nekk ak angle d' bi nga koy attaqué mhm. kii dafay ñëw mu ne dañ koo génnee parce que entre dans l'ordre normal des choses kële ñëw moom dafa am esprit boo xam ne dafa bëgg a defanteeg yu ni mel mu ñëw toog mu ne non le général a été humilié mm-hmm. yu ni mel ay ay yoo xam ne pour man je me dis que sax ñi est-ce que mesure nañ gravité euh, vocabulaire ak ak mots nga xamante moom moom moom la ñu utiliser mm-hmm. parce que c'était tellement grave loolu ñuy def nag parfois li nekk ci ginnaaw lépp manipulation la mm-hmm. li nekk ci ginnaaw lépp manipulation la parce que depuis ba àddina di àddina ba tey am na fi ay généraux yoo xamante ne yëkkati nañ leen ñenn ñi am nañ promotion jóge ci colonel nekk général ñëpp xam nañ façon bañ ko defee ndax njiitu réew mi moo am euh, loola nga xamante ne constitution moo ko may à son article 45. d'accord waaye du tee dañ ko koy nangul mais du mës a doon sujet boo dañ koy teg si penc mi xale yu ndaw yeex ñëpp di ko këjëm këjëmee mel ni benn fromage boo xam ne ay souris dañ koy gis. Mhm. musul demee noonu. Mhm. mais fii li fi nekk di gis nag dafa am loo xamante ne moo ci raxasu woon mooy benn manipulation parce que boo xool boo defee corrélation bi. coowal fisc yi dafa jóg ci wet gi. waaw mu am coowal audit yoo xam ne tamit annoncé nañ ko fi. Hmm. ay poursuites yoo xam ne annoncé nañ ko fi. rek subitement. subitement léegi affaire générale bi ñëw ñu ñu daw langaamu si. parce que actuellement li ñu naan kii bëgg la boo ko taalee jaas sax mu langaamu si loolu moo leen léegi nag fi ñu langaam moo baaxul parce que pour man mbiri armée bi mu duggee waroon nañoo toog jàpp seen njàmbur parce que boo dégloo ñi nga xam ne ñoo nekk ci armée bi mhm. nga déglu leen ak ñi ci gën a kawe ak ñi nga xamante ne am nañ ci xam-xam tuuti mais amul kenn ku lay expliquer ne li ci am humiliation la mhm. bu fekkente ne euh, fa la ñu ko yóbbu muy Inde mhm. euh, Inde mooy quatrième puissance ci wàllu militaire Mhm. soo génnee États-Unis nga génnee Russie nga génnee Chine Inde moo ci topp waaye léegi loolu dañ ko humiliation la mhm. fañ ko yóbbu foofu mu am rang ministre ak yu nu mel ak euh, fañ ko yóbbu poste attaché militaire mhm. loolu humiliation la ba ko Abdoulaye ba ko président Macky doon jël di ko jox opération spéciale yi def ko général fekk fa ay colonel yu ko gën a màgget gën ko faa yàgg dafa humilier colonel yi fa nekkoon mhm. tey jii général Maguette Ndiaye bi nga xamante ne moo ko fay wutu moom moo nekk inspection des armes fa la nekkoon mhm. inspection des armes bañ ko fay def que mu wutu colonel la woon est-ce que mhm. humiliation la woon bañ ko fa yóbboo donc il faut ñu respecter sénégalais wàllum armée man je me buñ ci wax bu fekkente ne da ngay jublu pour manipuler na nga fi waay waay na nga fi bàyyi armée mhm. parce que ñun ñëpp ñoo ko bokk mhm. amuñu benn intérêt di si dugg naan général Kandé nii ak général Kandé na mhm. moo xam li muy def lépp lu mu def nag eh, man dama wax ne lu jëm ci tabbin Macky Sall ba mu koy def général Kandé fee am te am na ku wax ne sax ñoom force spéciale opération spéciale mosuñoo am njiit lan moo tax Macky Sall def ko est nit ñi toog na ñu général Kandé bi lan moo tax Macky Sall defuñu ko dañ koo bàyyi xam ne ay prérogative la prérogative am la ñoom ñoo ko jox def na ko loo daloon xelam mu def ko léegi bu président bi ñëwee ne man lii moo dal sama xel ma def ko ñu ne ko doo ko fi defee mhm. parce que Macky Sall jalaloon na ko ba mu kawe yow tamit da koy jalal ba mu kawe wala doo doo ko changer fële d'accord mu ngi noonu jërëjëf euh, Moustapha mbay mhm. euh, waxtu waa may commencé nag. Euh, waaw waaw comme ni mu koy waxee waxtu wi daa xocc daa xocc kon. alors Imaam ma ma ma ñëw ci yow laataa may dem ci lii di dem ci Saa Wolof déjà moom fi mu daanalee foofu laay ñëwee ah ndax wax naa ko ci affaire général Kandé pourquoi tant de bruit noonu moo nekk suñu thème bi mais mais mais mais mais moom dafa wax ba tudd relation historique entre presse ak régime bi fi bi fi wuute donc naka lañu mën a ñëwaatee ci. ci mbir mi décrier euh, naka ngay mën a yow bon je sais pas jàngate relation entre euh, certains journalistes ak yenn ci ay politique dem bay euh, utiliser benn campagne de diabolisation ou déstabilisation. waaw bu dee presse bi day man jàpp naa ni ñaari.